yaa aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb Cheikh Fallou Fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki internet yi safoo Jazboul Mouride TV ñu ngi am mbégte bu rëy rëy di ñëwaat ak yéen tey ci juróom-ñeenteelu fan muy neuvième jour ci atum 2022 ñu ngi leen di nuyoo fii ci Baye Fall ga muy jannatul mahwa ci kër Serigne Bassirou Fall alxuraan di nuyu bu baax a baax xalifaam Serigne Gunda Fall di ñaan sama borom yàggal ko te kattanal ko tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci ndogu yu spécial yi nga xamante ne chaque jour Jazboul Mouride mu ngi koy ànd ak yéen comme niñ ko defee ci ba koor gi tàmbalee ak léegi bis bu ne ñu fas yéenee jël benn kër ànd ak ñoom ci togg bi ànd ak ñoom ci wàccaay gi ànd ak ñoom ci sikkar si ànd ak ñoom ba ci jëbal gi nga xamante ni moom la ñuy jébbal seen ndogu yi fële ca Touba jaaree ci résidence ak bépp organisation bi nga xamante ne mooy am ci déroulement ak organisation yi tey nag noonu lañ fas yéenee àndaat ak yéen fii ci kër sëñ Bassirou Fall alxuraan ak ànd ak jëwriñam xalifaam bi nga xamante ni tey mu ngi fi muy suñ Ngounda Fall ñu fas yéene ànd ak suñu jëwriñ suñu mbokk taalibe sëñ Mame Mbaye Lo sëñ Mbaye Baye Ndongo ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare tey siyaare bu baax mboolem murid yi safoo saa su nekk Jazboul Mouride TV ñu ngi leen di siyaaraat bu baax te di leen jaajëfal comme ni nga ko waxee rek ñu ngi fii tey kër Serigne Bassirou Fall alxuraan ñëpp xam nañ ni moom day kenn ci njabootu Cheikh Ibra gi. maam day kenn si ci yi ndax euh, doole ji nga xamante am na ko waaye taxawaay gi nga xamante ne taxawoon na ko xam na ñi màggal gi ñu ko ñuy màggal fii sax muy màggalu ngërëm li moom moo ko daa taxawee waaye saa borom dogal na ndigal lu mënti am muy ndigalu Cheikh Fall da si daan def kem kàttanam ba tey jii xalifaam bi fi nekk muy sëñ Gunda Fall yàlla saa borom yàggal loolu te wér ñëw nag taxawaay taxawaay boobu nga xamante ni baayam bu tedd ba daana ko taxawee tey nag loolu lañ leen bëgg a fii si kër sëñ Bassirou Fall wan leen li nga xamante ni nag moo bi xew. jërëjëf sëñ Mbaye kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen dugg fële ci kër sëñ Amdi Fall Modou Mbenda bi nga xamante ni foofu la waañu waa kër Serigne Bassirou Fall alxuraan nekk ñu am fa ay cin am fa mbooloo mu yaatu ñu am fa taxawaay bu am solo comme ni nga ko waxee léegi rek Serigne Ngunda moom fi mu fekk fi mu fekkoon ndogu yi baayam waajuram sëñ ba Fall alxuraan bàyyi ko fa dafa am yéene gu rëy mooy lan yóbbu ko fu gën a kawe kon dañuy ànd ak yéen dugg ci biir waañ bi ànd ak yéen fépp fu nga xamante ne liggéey bu yaatu nekk na fa te ñu war ko mën a fësal ñu ànd ak Jazboul Mouride TV bisimilah. waaw mbokk yi ñu ngi fii ci biir waañ bi nga xamante ni moo nekk fii ci kër xalif bi muy Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall Mbenda ci biir waañ bi ba tey dafa am taxawaay bi nga xamante ni moom la kër waa kër Serigne Bassirou Fall alxuraan ci am ci biir waañ bi am ay ndab yu nga xamante ni muy ay cin yoo xam ne dañ koy togg muy ndog yu ñuy jël ñoom itam di ko jébbal sëriñ bi ñu dend ci ak kenn di jàmbaar bokk ci jëwri ni muy Serigne Bassirou Diouf muridullahi moom Serigne Bassirou Fall alxuraan doon jàmbaar doon responsable fii ci biir waañu kër sëñ Bassirou Fall alxuraan sëriñ Bassirou Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet yu Jazboul Mouride TV. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen waa Jazboul Mouride TV ndongali Bassirou Diouf moom sëñ Bassirou Fall alxuraan Muridullahi Touba Palen moo leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen. jërëjëf sëñ Bassirou ñu nekk ci waañ mi nga xamante ne waañu jàmbaar la. ndax képp ku ku kuy ku baax gis nga jëfu Serigne Bassirou Fall alxuraan te xam nañ ni tamit wutu ko yombul ndax jàmbaar la woon teg na tànkam fi nga xamante ne fala la maamam ne woon tey ki ko fi wuutu muy Serigne Gunda Fall bàyyi leen fi ci biir waañ bi dénk leen liggéey bu am solo lan mooy doon seen taxawaay yéen ñi nga xamante ne seen yaakaar daa aju ci kër googu muy ndog yi nga xamante ne da koy toog di ko jëbal jëbal Seera Fall naka ngeen di organiser woo ba loolu noonu mën a yemb dëggantaan. waaw kay jaajëf Mouride xanaa di santaat. ndax lii ñuy def nii Serigne Ngounda Fall lii moom la waroon ndax li tax ma la moom la waroon dafay nekk ak waajuram waajuram jël liggéey bépp teg ko ci kawam muy Serigne Cheikh Fall cokke doon tey jii xalifab sëñ Mbàkke Fall Serigne Ngounda Fall wuute fi sëñ Basiru Fall xoraan ndax lii lépp nag tey fu mu mën di toll Serigne Basiru Fall alxoraan moo ko fa àggale moo ko fa yóbbu ba lii nga gis muy sonn waar ci moom la soqi koo donta kër sëñ Mbàkke la waaye nag lépp nag da koo aj ci kër sëñ Basiru Fall sëñ Basiru Waxwaan moom la sëñ Mbàkke Fall cëre la cër bi mu yoraloon ko ko di ko doxal ba bàyyi koo fi sëñ Bada Mbàkke Fall ñëw yenu yen bi yàggu dara mu jébbal ko rakkam ji Serigne Cheikh Fall Cokke Serigne Cheikh Fall Cokke moom it daal di jëlaat lépp nag jébbalaat ko doomam ji di sëriñ Ngunda Fall moom sëñ Basiru Waxwaan yàlla na fi yàgg te gën a wér njaboot gépp moom it mu jëlaat liggéey bi nag jébbalaat ko nag donga yi ak taalibe yi ak murid yi ak soxna yi ndax sëriñ Cheikh Fall Tokké daa jël liggéey bi jébbal ko sëñ mun la sëñ mun ànd ko nag ak soxnaam suñuy wax soxna Ndiaye Guèye bi sëñ mun ne tànnaate àndaat ak suñu soxna Ndiaye géey liggéey boobu jëlaat kuy wax mët Diop moom it toftal ko ci biir murid yi góor yi ak yu jigéen yi mooy mu nekk fi jëwriñ ànd ak ñun liggéey bi nga xam ne liggéey bu ñu xëyee juróom benni waxtu danañ tàbbi si nin fi tabbisee mooy suñ jëlee li nga xamante ne mooy liggéey bii ñuy defar fii ci tàmbali saytu gi saytu gi mooy pomme terre lan lay njëkk a jox suba gi teel jox la soble neel demal nga nga nga saytu ko bam bam bam bam sell buñ ko saytoo bam sel da ngay der koy def say bool ub ko delluwaat ñu joxaat la poobar kaani ak laaj ak lépp li ànd ak loola nga ñëwaat mbooloo mi teew ñu saytuwaat ko ba bam ba mu yëwén ñu dencaat loola ci fu sel bu ñu demee ba fukki waxtu ñaar fukki waxtu ak ñaar bu tegelee fan fanweeri minute ñu daal di wootewaat nga dem jëli diw soo ko indiwaat ba fii nag buñ ko indee fii taal taal yi def ci diw gi fas yéene nag jublu ci liggéey bi nga xamante ne mooy ndogu yi nga xam ne day jógee kër sëñ Bamba day jógee kër Cheikh Rafal jëm kër sëñ Bamba daal di ànd woo mbooloo mi ñu toog bu ko defee jëwriñ ji day daal di ñoom ñi nga xam ne mooy ñooy jëwriñu jigéen ñi muy soxna Ndiaye Guèye moom la ñu njëkk bu ñu rusee pomme de bi mu dem yëngal ñëwaat mook ñi àndal ñëw toog. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi ci biir waañ bi ba tey ànd ko ak ak waa kër Serigne Bassirou Fall alquran ci biir liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy taxawu ci ndigalu tedd li muy ndigalu ndog yi nga xamante ni mbooleem bay faal dinga ko togg di ko jébbal Cheikh Ibrahima Fall moom mu yëkkati ko jébbalaat ko Serigne Touba Cheikh Mamadou ñu dend ak sunu waajur sunu yaay soxna Daba Fall soxna Daba Ngom soxna Daba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar. leen maa ngi leen di delloo fay nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi salaahu wa salaam ñu ngi sant sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall jàmbaar gi di sant sëñ Basiirou Fall alxuraan di ko ñaanal yal na yàlla yokk leeram ca barsàq Muhammad ak rakam ja ko fi fekk sëñ Bada Mbacke ak mboolem jabootu sëñ Mbacke Fall ga di ñaanal xalifaam bii nga xam ne moo fi nekk di sëñ Cheikh Fall Cokke yàlla na sunu borom guddalu fanam mu yeggaleel naalu kër sëñ Mbacke Fall geeg kër Cheikh Ibrahima Fall gi te ñu ànd koog moom ak mboole mu julleet ak taalibe yi ak ñun soxna yi di sant soxna njaay Guèye mi mooy jëw di ñu waañu soxna Ndiaye Guèye mooy jëw di ñu waañu fii ci kër sëñ Amdi Modou Mbenn jërëjëf soxna Daba liñ lay laaj mooy lan mooy taxawaayu mboolem soxna yi nga xamante ne seen yaakaar dafa aju ci kër Serigne Bassirou Fall alxuraan lan mooy doon seen taxawaay ci biir waañ bi nga xamante ne moo nekk ci kër Seera Fall bi. waaw soxna yi nga xam ne dañoo aju ci kër Serigne Bassirou Fall alxuraan muy ki ci gën a ndaw ba ki ci gën a mag seen pas-pas moo di liggéey sëñ Touba seex Cheikh Ibrahima Fall ndax ñun loolu lañ sëñ Bass nàmpatal ku fi nekk Cheikh Ibrahima Fall tàmbalee ko ci sëñ Modou Moustapha ba sëñ moo am di Modou Medam Fall yàlla na fi sunu borom bàyyi mu yàgg fi ànd ak wér. ñun toppee ak liggéey rek mooy sunu pas-pas jëfal Cheikh Rafa rek la ñu xam ak ñaq ak liggéey bii nga xam ne moom la yàlla boole ñu àndandoo doon benn di yëkkatandoo di dóorandoo joxe àdd ya fas yéene liggéey sëñ Touba sëñ Bassirou Fall alxuraan rek nàmpatal. ginnaaw bu ngeen toggee mooy ñam yu tedd yi nga xamante ni moom ngeen di jébbal sëriñ bi euh, lan mooy doon taxawaayu soxna yi ci ci ci yóbbu bi. maanaam ginnaaw ba ñu toggee nii ba noppi dañuy woo soxna Ndiaye Guèye mi nga xam ne mooy jëwriñu waañ wi ne ko ndab yi noppi na mu ñëw sellal ko defar ko ñu saytu ko ba mu yegg jox góor ñi ñu yeggalil ñu liggéey bi ñu delluwaat ci liggéey ba ba suba ak jàmm mbokki internet yi ñu ngi ci cëppaandawu jotaay bi comme ni ñu leen ko waxee rek tey àndoon nañu ak yéen ci suba ak léegi ci ndog yi nga xamante ne moom la waa kër Serigne Bassirou Fall alxuraan ci njiitalu Serigne Gunda Fall mi nga xam ne moo ko fi neewal di xalifaam di ko ñaanal sama borom yàggal ko loolu tal ak bu wéral ko tey subaak léegi ñuy àndoon ak yéen ci waañ bi ci wàccaay bi ci togg yi nga xamante ni moom la ñuy togg ndog yi di ko jébal Cheikh Ibrahima Fall fii kër Cheikh Ibrahima yi nga xamante ni moom la Serigne Amdi Fall moo du mbenn na nekk am fi seen waañ seen cin spécial yi nga xamante ni moom la ñuy toggal Serigne bi di ko jébal ñu àndoon ceeg yéen ak Jazboul Mouride TV ngir dara bañ leen cee rëcc waaw ni ko Baye noo nga waxee rek tey ñi ngi woon fii nga xamante ni mooy kër sëñ Basirou Fall alxuraan sëñ Munda Fall mii xalifaam ànd nañu moom li nga bi tey sëñ Basirou Fall moom sëñ Bakke Fall xarit Diop moom maam i xooli xool ko wàccaay te seen waañ nag nekk fii ñu sof ko si waañ bi nga xamante ni mooy waañ xalif général des Baye Fall sëñ Amdi Moodu Mbend ñu ñëw wan leen liggéey bi ni nga xamante ni mooy wàccaay ak yëpp ba tey jii ni ñu ko jébbalee xalif bi bu ko defee fi la ñuy jógee rek daal di ànd dem Touba comme ni ko ñëpp di defee àndandoo groupe boobu Baye Fall jébbal ko ki nga xamante ne mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye ñoom seen i ndogu fii lañ koy indi jébbal ko ki nga xam ne mooy am ni moo Modou Menda moom it moo koy jébbal après sëñ Touba noonu la Baye noonu la. nekk liggéey bu am solo comme niñ ko waxee léegi rek sëriñ Ngounda Fall moom ku gis liggéey bi rek xam ne fa ko waajuram bu tedd bi sëriñ Bassirou Fall alxuraan bàyyi woon yóbbu na ko fu kawee kawe di ko ñaanal sama borom dolli kattan gi ak mën-mën xam naa mbokki internet yi noonu lañ leen di joxee dig daje suba ak jàmm ak beneen kër ak beneen ndog asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu